waaw oh, lamin Yamal nommé gars yi ce petit ce génie ce pipite il a 16 ans xool nam ci génne FC Barcelone mais Lamine Yamal yow yamoo de nag bii bi nga dugal du biiwu xale salaam gars yi bëggee naa leen nuyu ku ci nekk seen ab ak seen ab mais gis ngeen bii bi Lamine Yamal dugal oh là là ce petit nommé fexe na ba débloquer situation FC Barcelone Lamine Yamal yamale na défense su Mallorca te ki yamale seen gardien bi saa danay dañuy xaas fixé joueur bi. yóbbu ko joor jour bi topp ko foog ne Lamine Yamal day xaabaabal dem jàmmalaay mu xëccaat ko yóbbu ko amoo siis mu dem ba di ko ci fekk sawaay ray ko bërën ba mu gëlëm mu yóbbu bal bi liberté 6 romb gardien bi bii beeg défenseur yeeg ku ne nii nga doon dem mu jigéen dañoo taxaw di xool rek gardien de bii moom da doon jàpp bal bi rek far leel bi sax karaw ba faw quel but non mais là c'est c'est quelque chose boo xam ne nii c'est inhumain Lamine Yamal tey da ñoo délivrer loo xam ne nii ba c'est c'est exceptionnel. chapeau à lui bonne chance bonne coordination kon nag catalan yi am ngeen pipit boo xam ne nii bàyyi boo ngeen ko seeni i fukki loxo mu ngi évoluer nag nag gars yi ñu ngi koy gérer ci anime bu baax mu doon match boo xam ne nii barcha football na ko caractère malgré son effectif réduit. effectif bi maanaam dañ koo wàññi carrément nag blessure yu bëri la am ba pare teg si Xavi da doon tourner équipe bi pour waajal seen match Ligue des Champions contre Napoli Lewandowski ci banc bi la débuté match bi et tant d' ci mel ni ay Fermin Lopez Etum euh, l' jour là j'ai oublié son nom beaucoup yoo xam ne ni ci banc bi lañ débuté après deuxième mi-temps bi ñu dugg débloqué situation bi présence Lewandowski ci défense adverse bi posé na bu baax a baax a baax si défense adverse bi sonal na leen loolu permettre kookee di Lamine Yamal mu gën a am boppam. délivré FC Barcelone jàppale leen ci anim boo xam ne bii wu génie enroulé boo xam ne gardien bi da ko doon jàpp ànd ak camp yi génn terrain bi match boo xam ne ràññee nañ tamit le jeune défenseur euh, FC Barcelone bu ngeen xamee turam ngeen bindal ma ko ci commentaire yi booy bu bees bi mën a football loolu day jàmbaare torop trop trop te il a géré son match défensivement il était prêt ay placement am baaxoon na ci âge bi xam moom la am Inoki Martinez gunge ko comme grand frère waaye gis nañ gën a gaan penalty bi nga raté waruloo woon tamit yow yaa ngi dóor bal bi bi génnee ko nga war a fekk si bal bi.

gis ngeen accélération yi mu doon def c' est quelque chose boo xam ne c' est bien pour le FC Barcelone mu retrouver confiance bu baax Lamine Yamal effort défensif yi doon def repli défensif yi comme attaquant mais il était exceptionnel moom it homme du match moom laa koy jox ma leen xaar ci commentaire kan ngeen jox homme du match jàmm ci yéen gars yi. aujourd'hui aussi c'est c'est un autre. Oh eh, le monde part en couille. <laughs> aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est. Eh Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Le monde part en couille. Tous les sacs. Aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est. Le monde part en Good. Oh, hit that ball. Oh, God. Good. Oh, hit that ball. Oh, God. Good. Oh, hit that ball. ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم عارف كلمه نشيطك والله بتاع دي يعني ابو اللي جابك عليك يا الله كمله كمله لا كويس كويس الف سلامه يا كابتن لازم نروح على الملك لازم نروح على الملك عمل له فرمان يا كابتن كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال يا شويه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 نشيطك والله بتاعتي يعني ابو اللي جابك على يا فضل الله سلامة يا كابتن كويس كويس ألف سلامة يا كابتن لازم نروح ألمانيا لازم نروح ألمانيا كابتن محمد كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال يا شوية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 نشيطك والله بتاع دي يعني ابو اللي جابك على التليفون كمله كمله لا كويس كويس الف سلامه يا كابتن لازم نروح على الملك لازم نروح على الملك عملنا فرمان يا كابتن كويس يا محمد تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى يا شويه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 didn't have to